heures internet yi info 2S TV képp kuy patriote rek maa ngi lay sàkku ngeen def ci commentaire ay kër yi bari bari bari ngir Ousmane Sonko ngir tamit patriote bu mag bi nga xam si nag wàcc na liggéey tey mu tuddee ci menace ak nga engagé woon pour rek li nga xamante si moo di am détermination ànd ak projet bi rek gëm ko lool pour li nga xam si moo di Ousmane Sonko rek nekk président de la République moom mi nga xam moo di menace daal nekk di tey rek la fi wàññi tiis ak ci am ak li nga xamante ne si ne nag moom moo di euh, lii nii di parti bi nga moo di parti Pastef Ousmane Sonko li gën a doy wax ak ki nga xamante ne moo di Zozo ko combat bi waajal tey ji daal démb ci guddi rek defoon na accident moom mi nga xam moom moo di Zozo mais daal tey ji rek daal def ngeen na mu defaat ab vidéo daal bëgg rek ñëpp fekk ko stade moom mi nga xam moo di Zozo daal mujj naa tane ak jàmm ak jàmm bëgg rek dem fa nga xam si ne moom moo di ca euh, combat bi nak bëkk ko bëree moom mi nga xam moo di Zoss ginnaaw nak accident bi nga xam si nag dafa na ko nag indilu ko nag benn blessé instant bi moo ngi ci jamu.